dayoo feebar bi lee kañ la fiy jugee termine yéene kaay ne en tout cas de la santé day waaw xam le woon na ne tant que wuñ na cas communautaire yii ah guerre bi duñ ko mën a gagné maa la ko wax yéene kaay dee mi jaagi ne en ñi nga xam ne ñi ngi dee ni la dee commencé nañoo tiitlu nag waaw waaw nit ñaa ngay commencé tiit dee parce que nag léegi dootoo dund bi sub lumb te dee goone kon ni dee naa ñaar fukk ak juróom-ñetti ci ay doomu aadama ci musiba mbaama dee la ñu jëm parce que ñaari a dee ci quatre heures de temps akbar laa ilaha junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn dee ñoo xam kon ñu ngi leen di faj Tambacounda dee feebar ba duggaat na fa Linguère dee benn kaaw communautaire moo daaneel ñaar fukki doomu aadama ak juróom Le Soleil yéene kaa ne junni dee ñi nga kon fa nañ leen junni kon ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ak benn dee ay kaay garaaw mardi tali nga xam ni kon maanaam dañuy dee ci corona bi lée waaw réanimation dañoo commencé paniquer ña ngay tiddee libération yi nekkaa ne téeméer ak ñett de yoo xam ne génn nañu hôpital démb Dakar Touba Sédhiou Kaolack ak Kolda daal dinañuy nooyi de guddi ri gée amatul kenn te amoon na 63 box bobri ne en tout cas institut Pasteur de waaw daal dinañuy weddi ne amul benn manipulation boo xam ni kon am na ca test ya ci Covid waaw te tamit wàllaate kon mësta am na ca ministère santé action sociale résultat yi kon amul waaw dee amu ca waaw kon contradictoire lu ca am amu ca Pasteur tamit mës ta jot ab demande suus woo xam ni kon ma nga jógee nag ca professeur Souleymane Boub di RSF amul termine yéene kaa ne en Pasteur ba de waaw amul benn résultat faux wala bu safaanoo woo xam ne nag jébbal nañ ko ministère santé ak action Direct News ne ginnaaw nag faux positif yooyee waaw institut Pasteur da da ngay de li ñu wax nekkul dëgg seen administrateur général bi lee bu bëggee wax ne institut loolee loolee amul docteur Amadou Sall ah xanaa moom daa déggul li directeur de cabinet ministre santé wax mi dëggal ne erreur yi am ci test yi yàq dara ci crédibilité wu institut Pasteur direct news yamu ca ndaxte nee na professeur Pierre Marie Gérard mi nga xam ne moo jiite réseau international des instituts Pasteur ana la wax na doomu jàngoro ji tasaaroo ci africain bi looloo tax ba président Madagascar waaw bilaay moo tey di moytu institut Pasteur évidence yéene kaa ne Samba Ndiobène Ka ministre élevage waaw ma ngay tasaare nag maanaam kon dunduk jur gi toll na ci ñetti milliards de critique yéene kaay ne Mansour bàyyee critique yéene kaay yow du samay kàddu de ne ñu ceeb de téeméer boo jël juróom ñaar fukk ak ñett laa lay wax ni lee séddale ko lu ëpp ñeenti million ci ay litre diwlin 3397 tonnes macaroni ci ay paquetu saabu ñaari junni ak juróomi téeméer fanweer ci ay tonu suukar yóbbu nañ ko Maimouna Isabel Dieng présidente commission la de ca comité de suivi ba ci waaw nee na am na ci yóbbul lekk gi leen ndimbal li ci biir région yi maa ko dama ne amee ca général François Ndiaye yéene kaay gi ne comité bi François Ndiaye jiite moo général comité bi du dara coquille vide la réew mi quotidien ne waaye Mansour Faye de suba lay def bi la am ah, ah, waaw waaw box boobu li de tey corona ko te gi lée dana miti de amuñu ay commande moo tax client yu bëree bëri dañuy de lañ soloon la ñuy solaat Dakar Times de yori nu corona ka de nguur geel opposition bi de ña xeex juboo woon nañ fi nag Macky Sall woo opposant yëpp ca ba waaw waaye sàndante xeer baa nga mel ni tulleeg man le sur saane en tout cas day waaw jàpp nañu ay mafia ak de kayit yi nga xam ne moom ngay am ngir mën a dem ci région yi autorisation yi ñeenti chauffeur laa la wax bokk na ca benn aide infirmier ak benn moodu moodu Touba lañ leen jàppee l'observateur ne gis nga kayit nga xam ne moom la Aly Ngouille Ndiaye fas joxe ngir nit ñi nee ne en tout am na de ci club des investisseurs Abdourahmane Diouf moom la wala dañ ko koo jiin le quotidien yee nekkaa ne jàppale bi nga xam ne ñu ngi koy jàppale waa akin lée ab cas importé leen infecté de ñoom CIS Babacar Ngom Sedima de waaw daa am ñu nekk ca biir conseil d'administration ba ne jàppale bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy jàppale akin lée ñoo ñee la engagé Baba Ngom la ko publié mais Babacar Ngom Sedima de di directeur exécutif ba ñu bare bari na ca ñoom de ña kaay ma jambal jàngi ne waaye opposant yi activiste ci société civile lan moo tax ba coowal Senelec ak Akilee lée bëgguñ cee wax Birahim Seck na ñun def comme politiciens yi di wax rek lu non ñu ngi ay information de bu leeree rek mu leer les éco yéene kaay ne bi nga xam ne jàppale nañ ko Akilee de waaw na de maar di tali gaa ñaa ngay démissionné rek Abdourahmane Ndiaye waaw bàyyi na de Samba Camara li expert financier bàyyi na démissionné te am na yeneen i démission xam ne ñu koy xaar de ñeneen ñi moom ca biir lañ fas yéene xeexee conseil ba nag moom ña ngay ca docteur Abdourahmane Diouf mu daal di jubbanti nag lii seen dimbal gii nga xam ne dañ ne dañ ko dimbali ak li ca jamono jooju enquête yéene kaay nee na tey wàllum faux billet ginnaaw coon sekk bëgg mar di taali lii moom kenn mësu koo gis junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ci ay milliards allahu akbar laas ne dëgg la ay faux billets la de euro brigade de recherche de juróom benn nit la teg loxo laa la wax mille six cent trente neuf milliards xam ne ci nguuru Abdoulaye Wade gi la ñu bokkoon allahu akbar waaye lii moom bëri na di waaye nag ak lu mu bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri ba léegi passé gul suñu njëgu pétrole bi de déedéet parce que suul gaz du ko tere